donc ñu dem ci ki nga xam ne rek moom la. Mhm. Euh, maa ngi lay nuyu di wax ne te del xool bis yi ak ñu may booleel. parce que ah. ki ma dajal ci bunt bi neexuma. mais buzz da ma sañoon du ko fekk ci bunt bi. mais buzz da donc loolu maa ngi koy naqarlu. instant bi dafa yor buzz bi aussi tamit di ko wax ci télé bi di wax ni bugguma muy toog may jóg. Euh, muy jóg may toog may toog. ah d' accord mais waaw parce que aussi tamit am loo xam ne rafetul. Ah. waaw da nga loolu nag euh, da nangu li yàlla dogal. yaa doxal mooy maître El Hadj Diouf mooy sëtu Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf cinquième président de la république loolu yàlla dox. président PDP. Mari la jour waaw dégg nga kàddu Macky Sall yi hmm. euh, nee na ko gedd sa yaaya aye dëgg la bu yàkkee may la xooj bu la fàttee may la ñeex eh, waay man man man yow laa président dafa dégg daaj dafa trop boo jooyee boo waaw bi ngeen doog a visité nag. chute bi foofu laa yor. waaw yaa ngi fa de am problème waaw. loolu di lu am solo. Mhm. Eh, di wax ni. Mhm. président keroog boo ko xoolee ni mu toogee. macha allah. aisément sañse. Mhm. sol col ko goo xam ni col ko goo am solo. jàkkaarloog un grand journaliste. Assane Gueye. ndeysaan Assane di ko laaj. muy tontu mu koy laaj muy tontu mu koy laaj muy tontu. tontu yu leer. président li ma gën a neex ci moom am na tour yoo xam ne laa ñam da ko araamal foofu laa ko faawe Assane Gueye tudd na ko ñaari yoon turu benn waay Sonko président faale wu ko of ko loolu c'est ça la communication parce que mhm. communication danga nga koy jàng da nga koy mën après bi ñu jógee foofu ñëpp dañ ne lu tax tudd diw euh. nga gis ni président dafa def bës ci ñàkk a tudd tur boobu mhm. loolu yoo am solo parce que loolu day permettre président lim fa wax ci ay njuumte. ñu mhm. fàtte ko. Mhm. di lijjanti ay détails fekk ci interview bi président sax def na ci ay erreur de communication mais du feeñ. ah d'accord c'est parce que Sénégal aime les détails. Mhm. naan lu tax tudd Ousmane Sonko waroon na koo tudd Ousmane Sonko dafa mel ni mooy Balla Gaye président mooy Yékini parce que Yékini dafa bañoon tudd kii ni ñi def loolu di def loolu débat fekk président am na lu mu wax ci pétrole bi loo xamante ne bii buñ ko càmbaroom mën nañ faa sax daaneel ko. ah d'accord waaye détails yi lañ topp. Ah, kon président ci biir waxtaan bi def na ci erreur. ah bi defee erreur. Ah. ci la Assane dugal question boobu xam nga Assane xamul dara ci pétrole président di wax ci pétrole bi Assane naan ko président naan ko pétrole. plateforme nii plateforme la Assane Gueye xamul dara ci plateforme moom journaliste la boo xam li mu xam mooy président diw tooñ na la diw mere na la romb na la màttu loolu la président loolu la xam président dugg ak moom ci pétrole Assane Gueye joom bi téye kayit ne laay laay la laa kee xam pétrole <laughs> pétrole. <laughs> Me El Hadj Diouf yaa fekke loolu ay Me El li nga nekk garaaw na de yow. Eh? li ngay wax garaaw na de. technique la. ah d'accord dañ ko jox émission bi mu yore ko ba noppi ñëw président di wax moom pétrole Assane bu sañoon danaan wis ko jox ko Babacar Fall. <laughs> léegi président Macky dafa woote dialogue yow mi nga xam ne yor nga PTP. di nga wuy ji. waaye incha allah dinaa wuy man duma gedd parce que man nekkuma nit kuy gedd te président bu ma woowee ci dialogue. dama ah. koy wuyu parce que dafa woo parti yu mag yëpp. daal lan ma la ko dama message yu ñëwal. Mhm. waxu ko directement chef de l'opposition. Mhm. Ah, waaw man chef de ko sax naa bàyyi gars yi ko mooy chef de l'opposition. waaw ah, <laughs> ci ni këram sax du fa chef. kan Idi. du chef këram. day nekk chef ah lu tax ba nekkul ci ah yow tamit nag. këram kuy chef. Eh, moom. ah du madame de. ah yow yaa indi beneen tur de. déedéet moom moo moo. <laughs> yaa ngi indi beneen compétition. compétition la. <laughs> yéen ma yóbbu ci beneen compétition ma yóbbu leen ci beneen. yow yaa dugg ci beneen compétition ba daal dafa def chef kër. kooku sama mbokk la. waaw. Ah. macha allah kër Farba ko kër Farba Ngom loolu rafetul. parce que aussi loo xam ne ah, dafay ñaaw parce que après tout. Eh, nit la daal ñaaw lakk kër jaaduwul. damaa oh, gis donc nañu internet ñu naan yow yaa ne booy booy sonko yi la. ah, ah. waaw ci ci lañ booy sonko fii lu fi xew ci lu ñaaw booy sonko yi la. ah dégg nga loolu nag dafa ñaaw daal. lu rafet loolu moom bu ñu ci ci débat daal parce que dafa ñaaw la. du fi ñaaw booy ah, sonko. waaw loolu moom dafa ñaaw dafa rafetul lakk kër baaxul. waaw kay surtout man taal lañ sama kër. lekk lekk lekk kii. surtout lekk fa ñaari fataaya ci kii fataaya. yow sa kër tam marché bi wax nga dëgg. marché wala ñu taan yi ak yow ana ana bay omelette. non buy omelette. kooku manifester wul. kër maître El Hadj di omelette naan damay manifester. ana manifester saaf omelette. non mais El Hadj Diouf nag loolu amul <laughs> manifesta ba ci waaj. ah saaf saaf ginaar yi. ba fa nekkoon. ah day day manifester dañuy taal kër balaa ñoo taal kër lu lekk ba suur togg. bi nit togg fan la nekkoon. nekkuma ci kër ba ma fa nekkoon dañ may rey woon rek. dégg di rosi naan diw gi sens ana manifester ak diw gi sens xam nga lii fi ma la mais moo tax ma ne booy dañoo xiif. yow ko normalement war a bokk ci ci avocat yi plaider di la Ousmane Sonko la moom eh, parce que Sonko la. Ah! plainte. instant eh, bi wax naa ko wax naa wax naa ko xar ba doonte bi ñu gëstoo ba gëstu xam nañu mbirum suuf waaye mbirum suuf yooyu yëpp moo leen activé impôt domaine la nekkoon moo ne fii yéena ko moom te bi mu koy joxe naan leen yéena ko moom ñooñu moomuñu ko woon yàgg na ay dossiers yu yàgg la nañ ko yóbbu ci yoon ba danay dossier dossier bu muy jàllee dossier pigeon yaa ngi ñëw mm. bi mu sàccee pigeon jàmm ah. yàq na sàcc bi mu nekkee xale daa sàcc pigeon boobu tamit dossier la am na yu koy xaar. Sonko nii la plainte yi de yow yow. comme que comme ngay wér di rek Sonko daal di per bu mu pare am ah, beneen pere gi ñëw. non mais mais loolu dafa ëpp. Ah. yéen Sonko defu leen dara Sonko mi ngi ci dëkk bi di liggéey commencé na ni mu tur fàtte leen yow lu ñëw rek nga ni Sonko. yow mi rajo lu ñëw rek nga ni Sonko moo ci bokk. maa tey. ah d'accord kon jeex na su taa jeex na. macha allah donc ba suba incha allah.